ba di ko sajj ko xeeb ba di ko xas ndax lan ko defal xam nga loolu lu muy tegtale ñàkk doon sang sang lu mu mayee fàtte ko sang lu mu defal nit du ko ko jàppal te yàlla nanguwul kuy jàppal nit dara yàlla nanguwul kuy xoole nit dara parenthèse moo tax yonent yàlla Moussa ba banu Israil marale ñuy baaw naan def ñaan asamaan si ne ràng tiinul tawul mu ne yàlla ñaan nanu la te tawuloo sunu borom ni ko dafa am ci biir mbooloo mi nit ku ma def tooñaange goo xam ni tuuba gu ko ci xolam bu ko defee rek ma taw mu ne yàlla wan ma ko ma génnee ko nit suñu borom ni ko ma wan la ko ëllëg nga di ko ko xoole mukk duma la ko wan mukk nga di ko ko xoole kon yàlla nanguwul ku weer nit déedéet yàlla nanguwul ku ñaax nit lu dul na kooka dafa goree ci ku ñu defal nag nga goree di bañ a sant ida du fi na la amalu jaazal man nu dëgg la bu boobaa nag war nañu la ko kii
يمن بلا من وينسى المعصية يمن بلا من وينسى المعصية
mu ne yemunnu waaw mu ni ji dafa mel ni saf na leen yéen lool safu leen yéen
kii la bu ma lay roof noonu ci wàllu pédagogie pour nga yàwwu du lu may kafe sax mais dafa bokk ci njàngale léeg-léeg nga xaacu léeg-léeg nga wax ndànk léeg-léeg nga ne bërit mel na luy bëgg a dem ne di gëstu taxaw te ku meen ku meen ku meen Égypte gis nga na na na na prof yi jàngale dañu mel na luy daw inna lil azani la majja wa lil aqli la malal wa inna lil muallimi an yataallama kayfa yuallim xel day wàccu xel day wàccu day sonn teg ci booy wax lu neexul xel yëpp dañuy wàccu booy wax lu neexul xel yëpp dañuy sonn teg ci kon waru gar la ci jàngalekat bu ne mu jàng nu ñuy jàngalee dëgg la
dégg nga de inna lil aadaani la majja wa lil aqli la malal wa inna lil muallimi an yataallama kayfa yuallim maa ngay dem de doxal
wayan fii day dàq moom yonent yàlla Muhammad almaasiya ay mooy yàlla yaxduuna rasulullahi waa Makka dañ koo dàq ay kilomètres ne buñ ko jotee rey ko waa Madina gàttanu ko ay kilomètres ni bu egsee nu roy ko dégg nga de ñii dañu ne na fi jóge yebal ay nit ñu amul kilifa weddi yàlla yor ngànnaay ni buñ ko jotee rey ko waa Madina ni na- na egsi nun soxla nanu ko bu yegsee nu roy ko ñi ne dañ ni buñ ko jotee rey ko ñii ni bu yegsee nu roy ko si da xaaji Malik nee na njol Makka bisu àjjuma la génne këram dugg xaaru xiraa toog fa samedi toog fa dimanche dugg altine muy ñetteelu fanam mu génn capitalu Makka wa qarrajima layaali la koy wax fihi muxtaraman biraatin ankabutin summa warqixan mu dox huit jours egg masjidu Quba yegg si ajjuma alaaji Maalik ne def na fa ñeenti fan aqama inda alquba daalan wa assasa ma qad kaana ussisa fi taqwa ma al udami jàkke jooja suñu borom nee na ña ca doon dugg ñu ragal yàlla lañ la masjidun ussisa ala taqwa min awali yawmin axaqu an taquma fiihi ndax fii rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu dégg nga de masjidul Quba njol Makka def na fa ñeenti fan dal di takk waruwaay wa war a dugg nag Madina fekk waa Madina doon nañ ko teeru yëgoon na ni njol ma départ Alaaji Maalik nee na yaxduuna daan nañu xëy ñoom waa Madina kulla xadaatin bépp suba xatta yaruddahum aw yaruddahum ay xatta yaruddahum ba delloo leen xarru dahirati taruk tàngoor wa waaye ñana daan xëy ahlu taibi waa Madina alxaram yi ga diguñu xormaal waa Madina bañ déggee ni njool màkkaa ngi ñëw bés bu ne ñu xëy ngir teeru si rasulillahi waaye dañu daan indi góor ñi indi jigéen indi mag indi ndaw kenn ku ne ñu wax la looy wax ñenn ñi dañ daan wax naxnu jawaari min bani najaari ya xabada muhammadan min jaari xam nga xale yi dañ daan wax allahu akbar jaa muhammad allahu akbar jaa muhammad أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد واخلم الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد والله أكبر جاء محمد xam nga lu ñuy toppoo yàlla màgg Muhammad ñëw na yàlla màgg Muhammad ñëw na yàlla màgg Muhammad ñëw na waaye su da xaaji Maalik nee na événement ba am na ci saw saw bu ëpp a fàtte ñu ne ban la mu ne benn xale bu jigéen a nga fa tama la yoon tama siirin la tudd ci kër tama tamaa ngi garaaw a garaaw a garaaw billaay bu seytaane indiwoon kenn dóor ko fii ilimaan yi dong dong la seen tànk dul yëngu te maa ngi wax ci gàmmu ndar daaw ne tama kuñ ko tëggal nga fekk ci dof nga yi daje ba tama am yépp dañoo tee maa ngi wax daaw ci gàmmu ndar ne tama kuñ ko tëggal nga fecc dof nga yi daje ba tama am yépp dafa dee galen bi garab la woon dafa dee moo tax muy galen der bi bëy la woon mbaa xar dafa dee moo tax nga door a am der bi wëñ ya lu doon dund la ñu de mu dee ñu door ko ràbb amin ak yow amin ak yow amin waaw kay waaw kay maa ngi yëgal de bantu tama bi garab la woon dafa dee door nga am bant bi ñu yett ko galen bi dee bantu tama ji dee buum gi dee der bi dee ñu tëggal la ko nga dóor pooj jum nga waroon ngaa def sa xel ni ñooñu nañ def danga ko def ba tax kuñ tëggal tama nga fecc cuune nga ah waaw waaw bu dul dëgg dindi leen ko loolu am de ñàkk a seetlu rek la séeréer ñëw ci wetu rasulillahi ni ko man dey ak fonkel laa la ëmbal ci sama xol waaye fecckat laa tëggkatu tama laa may laaj ndax bu ma dóoree tama ji dóor pooj dinaa ci am bakkaar wala dee
sida xaj mali nee na mu déey ko ni ko insha allahu zaka alfawz bu soobee yàlla sax sa pecc moomu le da nga ci texe addina texe ci alaxira waaye keroo la ko jol makka nangu keroo la ko gàntu bu bés feeñ ci olama yi nee ñu dafay door a yegg si fekk conception dëkk bi mu fekk leen ci gandu yew yi béy bañ ko tëggalee tamaja ba mu dugg dëkk ba ba defar jumaa ja ba installé gisaatu leen ci siira fuñ tëgge tama kon bu ko kenn lay yi naan damay tëgg tama ba toj fii dégg nga de alaaji Malik neen illahi jaariyatu قالت مغنية فهل علي إذا ألهو من الجنون وقال لا خير خلق الله مبتسما إن شاء الله ذاك الفوز والحكم دقيقة حاج مالين تقلبوا ذات يوم تقلبوا للبيوت وقد رأى النبي يهودي على الأطمي
ربي يهودي على الأطم
وقاموا إليه سراعا في خلاع سيد الحاج مالنا من كل وصف حميد على أفعال تبديل رجاء البراء يا إمام مزدحم مصطفى
للوام مصطفى من كل عام آدم آل رجاء البلاء يا يوم مصطفى الإذلال سيدنا صديق عرفهم قل يا قل إن إنه من أفضل الأمم لنا من كل وبد حميد
رجاء البراء يا يوم مقتدى ومن زمانية كل الأيام جاب على تلك المسافات لم يتهم ولم ينام مصطفى من كل وبد أمين تقلبوا ذات يوم للبيوت وقد رأى يهودي النبي على الأطم يلتي الله محمد waa Madina ba ñu déggee départam bis bu ne ñu xëy gàttandu si ko ba une heure et demie ngir yàkkam ci rek mu ñëw ba ñu dëkk ak moom ne ci loolu ne ci loolu ba am benn bés ñu gàttandu ba xaat gi bay ñibbi am benn yahood yahood ci alquran foo ko gis mooy juif an nasara foo ko fekk mooy chrétien benn yahud mooy yéeg ci kaw tataam tata seen leeru rasulullahi di mel-meli ci digg njolloor te njol makaa gën a rafet ci nit ñi njol makaa gën a rafet ci nit ñi ni mu gën a rafete nit ñi noonu la leen ëppee caractère génn na ci kanamu benn arab mu gis ko rek di lox jol ma ko ni ko hawwin alayya wàññil fi nga ma teg fa innama ana ibnu mraatin taakulu lxadiid benn jigéen a ma jur rek buy lekk seeli gëléem yàpp gëléem comme seey wàcce ma ci suuf fa inni lastu bi malikin man duma buur innama ana abdun jaamu yàlla laa akulu kama yakulul abd damay lekk comme ni jaam yëpp di lekk kooku d'accord woon ci ku ko teg yàlla ñu di ko teeru une heure et demie jot waa Madina rompe pour dellu ci dëkk bi alaaji Maali ne taqallaboo jàllar bi ku nañu ëlbatiku nañu di ñi bi zaata yow min jëmmi benn bis lil bu yóoti di dellu ci néeg yi bu xadraa gis na kan yahudiyun benn yahud kan la gis annabiya rasulullahi alal utumi waaye yahud baa nga toogoon ci kaw tataam ñaari bayt yooyu la ma guddi gi may ci gàmmu gi cinq heures moins vingt waxal leen ma la ngeen ma daan waxal ma tàggu nit ñi awaloo du ci man awaloo muumat aaxiroo muumat waayiroo muumat baatinoo borom baryeeroor ba cameri na ko sopp rasulullah inel ni laqad saada man yaati kama saada man madaa jàmm kayaa leen gën bokk na ci gën ji moom la yàlla wan ni ko toppatuma la dara te teewul mu takkoo jaamu yàlla guddeeg bëccëg laqad saada man yaati kama saada man fada ñan ma kayaa leen gën sunu borom nee na ko inna fataxna laka fatxan mubina yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara ubbil naa la bunti yi tëjuwoon rab def naa ko léegi mu ne ŋàpp bal naa la toppatuma la looy bëgg a def toppatuma la loo mas a def guddi googa la fanaana naafi la moom rasulullah yi ba ñaari tànkam ya neew yi suñ yaay aïchatu ni ko da ngay alak sa bopp te yàlla toppatu la daawa mu ne ko afala akuna abdan shakura ku ñu defal lu toll nii njukkal war na ci moo tax li nga ne moo gën ñëpp dëgg la na ñëpp ne ni ñu ma màggal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وإذا وصلت إلى الضريح المستوى والنفس قد بلغت هناك مناب جبال من غنيا جل محمد فقل السلام عليك يا خير الورى وصل إلى شفاعة تغتاها خالف هواك وقم إلى ذاك الحمى وسل حسن ختامها وهدى ثم الصلاة ثم الصلاة بهدية للمصطفى ولعله يرضى لقد ساد من ياتي
jol makka yaa leen gën suñu borom nee rek ubbi naa sa dënn ba mu yaatu xat-xat dootu la dab alam nashrah laka sadraka wa wadana anka wizraka wizraka alladi anqada zahraka wa rafana laka dikraka suñu borom nee na ko yëkkatil naa la sa tur fu ñu ma tudde man yàlla daañu la fa tudde yow rasulullahi wa rafana laka dikraka kon fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran wa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab teewu rasulullahi continue di jàmm borom
daañu ne ñëpp def nii nu magal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li kulli nabiyin lil anami fadilatun wa jumlatuha majmuatun li Muhammadi laqad saada man yaati kama zaaban mada jol makka yaa leen gën li nga wax intéressé na ma nga ne lan لكل نبي للأنام فضيلة لكل نبي bépp yonent am na fadilatun gën gu mu gën lil anaami ci mbindeef yépp yépp وجملتها مجموعة لمحمد بن جاشم wa jumlatuha boolee mi ngëneel ya majmuatun lu ñu dajale la lu ñu enveloppé la li muhammadin mu daje ci yonent yàlla muhammad وكل نبي جاء يبشر قوما بأنك تأتي خاتما بنبوتي لقد زاد من يأتي كما زاد من مدى ظلمك يا لم جد sunu borom dafa fasanteeg yonent yépp wëlëre di leen maa leen tànn bind leen may leen leer yebal leen ci àddina dem leen waxal ma ne man yàlla kenn laa waaye kuy wax yàlla kenn la ba rasulullahi fekk la fa duggal ci biir mbooloom bokk ci surga sa wala dootoo am cër bi nga am way daa xadallahu misaq nabiyina ma ataynakum min kitabin wa xikma suma jaakum daf leen ñëwee loxo yi ca kaw.
لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن وقال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سيد المجاهدين مولام تراني يا خير يا كورم يا اسم وصيلة حقا عند رحماني تربيت يوسف نقطع بيت داود بور سليمان مريم يا كل كان لقد زاد من ياتي ظلمك يا لندن daaw góor li mu wax dafa ni njol makkaay sangu ñu jëkk ña mooy sangu ñuy dund ci jamono mooy sangu ñuy bëgg a ñëw mooy sangu waa biir mooy sangu waa biti mooy sangu waa kaw mooy sangu waa suuf mooy sangu nit mooy sangu jinn mooy ci kaw.
sangu kukkam mooy sangu ko
آية والأنبياء وكل خلق في الورى جميع الرسل دون مقام والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك لقد زاد من يأتي كما زاد من مدى ظلمك يا لندن sëñ Mansour Dieng yàgg waa daayira bi maa ngi yem fii tàggu leen ba beneen yoon nu waaja ci neneen يا مالكي لوقتي ظلمك يا لندن yal na fi yàlla yàggal suñu imam bu baax bi imam Sakho wattu ko moog magi jàkk ji Amiin.
yal na fi yàlla bàyyi Serigne Mansour si xalif général de Tidiane bàyyi fi njaboot si dal Hadji Malick yëpp ak يا njaboot مالكي كن شافعي في فاقتي دول مكة لنجن foofu lay yem wasalaamu aleykum wa rahmatullah هب لي متابا خالدا مولانا منين يوم مدى اسمي منين مولانا منون خير بديع جبري منين مولانا ومفتاح أيوة مصباح منير مولانا جواد كل الموسى صباعين العيون مولانا المرتدى هادئ بشيرا مولانا والرجال الصبح حيب بظليل مولانا وناب به قدور المقتدي مولانا إلهي جاء فيا خير القرون مولانا هم الخلفاء متعة المعاني مولانا عدود سنة الحسن خلافتي مولانا عنان الله
موت مولانا قد انتهجوا ومن شر القرين مولانا أيوة مدحنا المصطفى مبنى عجيبا من يغفر لي غفور بيوم ديني مولانا أيوة ويوم القمطرير كزمهرير مولانا أبوس شر شراقفنا معين مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي مولانا إلهي توبة توبة قبل المنون محمد إلهي إلهي ربنا ربنا هب لي نجاة محمد محمد وأصلي والمسلمين والمشيخة والخطين محمد وأحبابي وذي الإحسان ربي محمد
مع إلينا مع جميع المسلمين محمد وألف تاب طيب الخلق ربي أيوبنا صلوات في البر المبين محمد سلاف بحضر ذلك ألف ألف مولانا سلام مجنن ذلك ألف ألف أنا سلام مجنن مجنن مجنن مجنن مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن مجنن ذلك ألف ألف مجنن ذلك ألف ألف مولانا يعم الآل لحينا تبعد إلي مولانا وإلا النظم يكفي لا طلاب وغربيع وعرش سجوني يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الفنون فاتحة كان كنا نجمع فاتحة على صلاة الفاتحة آه. يلا نفكر